am na loo xamante ni. waaw suñ ko bay bayee bu continuer du dem su ma ñëwee ci problème Dakar dem dikk c'est un problème purement politique xëccoo positionnement. Mhm. parce que xam nañ ni nguur gi dañ na am na ñoo xamante ni soxla nañ poste boobee. ñoo yëngu man duma politique mais c'est ce que j'ai senti. c'est un problème éminemment politique bu mu la bett suba. ci conseil des ministres. Uh-huh. ñu dàq ministre ñu dàq DG ba bu mu la bett. waaw su ko jaree. waa waaw non déglu ah, rek non non non non c'est-à-dire xam nga problème bi lan la. na ko jar rek. xam nga man lu ma d'accord. waaw ci secteur transport la toujours. waaw yow li ñuy kaas mosuñu ko kaas. waaw mosuñu wax ni salaire yi dafa ndaw. mosuñu wax nangam sangam. la nomination la promotion revient. c'est un droit au directeur général. ci anam déglul baax li ma la dama ne. <laughs> su nekkee dafa am poste bu vacant. ka fa nekkoon rek retraité. Hmm. ka ca teppoon ñu jox ko ko. Mm-hmm. loolu mooy liy yoon. Mm-hmm. day day am ñu muy arrangé. am ñu mu arrangé wul. ña mu arrangé wul su ñu jiitee syndicat ba ñooy def tolof tolof ñooy àndi yëg-yëg. am na ci parce que tey jii ñu toog. Mm-hmm. am na ñuy yëngu ci biir dakaa dem dik pour diriger kër gi yow xamoo ko. te coow lii am lundi. Mhm. man bettu ma ba ma demee foofu di dagg billet pour dem Louga. yëg naa ko ñu ko doon ruuma naan ñu koy doon waaj ci suuf. Mhm. parce que syndicat yi ñu ngi koy dox. Mhm. donc c'est prémédité. parce que tey ñay liggéey Dakar dem dikk. ka ca gën a fës. benn nit la mu ngi tudd Jibi Guèye Ndiaye xam nga ko non. déedéet xaw Jibi Guèye Ndiaye mooy chef protocole Ousmane Sonko. ok fa lay liggéeyee. fa lay liggéey. mooy waaju am taxawaay ji te mu njool. waxuma moo moo soxla de waxuma. mais soo nee ma nga fay liggéey rek. donc xam nga ni kër ga am na ñu fa soxla dara. waaw ña ko fa soxla dañoo bari. lu mu tuuti tuuti am na ñett nit yu taxaw pour pour bëgg ñu jox leen kër gi. te ñaar ñu biir Pastef la bokk kenn ki syndicaliste la. Mhm. ñooñu du ñu bëgg kër gi yëngu du ñu bëgg kër gi dox pour l'instant pour ñu sàqal pexe directeur général bi. directeur général nag xam na ni day dem tôt ou tard. xam na ko xam na ko day dem. mais nañ ko defee ñaaw na. parce que bus yan ñu toj. waruñu ko woon toj. tey ministre ba. du moom mooy dàq ñooñu. kii dàq. directeur général ba moo war a sanctionné. mais fii nee nañ ko puisque yow ñi nga fal waroo leen fal. donc ñii waroo leen dàq. taxawaayu ministre ba ba mu fa demee. mooy jëlal say responsabilité par rapport ni yàq di kii bi. waaw parce que moo fa nekk. parce que moom moo fa ne ba tey. waaw dëgg li mu ko waroon wax mooy taxawaay ba mooy jëlal say responsabilité yow effectivement. sanctionné négativement ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi. moo doon yoon loolu mooy yoon. waaw d'accord naa. mais pas taxawaay bi xam ne da def du populisme. ndax nga am fii lëngante. est-ce que tu comprends. xam nga lu fi ne. man ñëpp laa yemale man que ça soit. Mhm. président Macky Sall bi mu dem dikk. noon laa daan jàkkaarloo Adama Fall. moo nga Dakar dem dikk waaw ah. Dakar dem mhm. secteur la boo xamante ni bëriwuloon coow. waaw mhm. ah, bëriwutoon coow. waaw wala déet te pourtant moo fi ëppoon coow dem na benn moment dafa stable mhm. travailleurs yi kenn déggu leen mhm. bus yi di liggéey normalement su problème amee la ñuy gaare seen bus topp jàpp seen jàmbur te terewul dañ leen koy fay weer bu dee mais ba changement régime amee positionnement yi taxaw mhm. xëccoo yi taxaw ku nekk bëgg jiite kër ga parce que pour yow da nga war a taxaw jiite mbir mi dañoo juum donc soppeeku du am rupture bi nit ñi wa doon wax démb ak barki démb du am ca Dakar dem